Au Sénégal, 38% des femmes incarcérées le sont pour un motif d'infanticide ou d'avortement. Être enceinte n'est pas une partie de plaisir pour tout le monde. Chaque femme dans une situation de grossesse non désirée, qu'elle soit victime de viol, d'inceste ou femme d'immigrés souvent abandonnée, vit dans la peur et l'appréhension du monde extérieur. Accompagner ces victimes est le quotidien d'une vaillante femme des quartiers populaires de Dakar, Ndei Awa Madame Sadjo lutte à sa manière pour réduire les infanticides en recueillant les nouveau-nés non désirés. ok euh, mère des familles ñaari góor ñetti jigéen dëkk fii ci Parcelles Assainies donc euh, depuis 2009 laa door euh, orphelinat bi. xam nga sooy liggéey des fois même liggéey bi bu doonulee liggéey boo xam ne am na xaalis mais le fait nga nekk ci bureau walla yàlla am lu la dénk euh, ñenn ñi dañuy am ci yow yaakaar. donc fekk nekkoon na samay mbëbët euh, bu yàgg mais bi may liggéey mairie nit yi ñëw di ma solliciter ñenn ñi femmes yi ñu am ay problème parce que ñoom maire lañ doon seet au mais bu ñu ñëwee te gisuñu mair ñenn ñi dañ leen di dem leen seet femme bële ñenn ñi ñëw di ma solliciter seen problème ma di leen di dimbali par rapport ak la ma am ak ni euh, may solicité comme ki nga xam ne dafa feebar te bëgg a faju am yenn euh, façon jàngoro yi donc euh, dama doon dem ci hôpitaux yi di ñaan ndimbal pour ñu jël leen en charge kon noonu laa ko commencé woon di dem ci daara yi di leen di dimbali des fois ngay gis xale yuy souffrir comme man ni ma ko mës a xalaatee parce que euh, ni ngay gisee xale yi nekk ci mbedd bi des fois surtout sedd ñu tëdd ci mbedd bi duñu am lu ñu sàngoo ak yooyu donc ci yooyu laa doon wut di ko yóbbu ci daara yi di leen di dimbali ci laa commencé na di accueillir ay xale nit yi di ñëw di di xam di ñëw ma leen di dimbale benn ñaar ba euh, toll ci neuf xale Nous avons 17 enfants, après 26 Non, non, non. ah ça dépend si ni may amee parce que si ndimbal damay damay def chaque année may avons ma 52 enfants euh, des fois dama femme bañul Une femme bu est euh, conscience tranquille nit n'est même nga teg ko si ay loxo sa xel du dal sa problème moo lay poussé ba doo laaj sa doom mais yàgg-yàgg il faut nga laajte ko parce que da gis koo xam ne daf la naan bugguma un bon jour nga gis ko mu commencé ñëw di la fréquenter ak yoon doom jee tax wala des fois ñu jël xale bi dem am na ay association yi may jàppale bëri lu mel ni Nour la lumière ñoom ñu ngi may jàppale parce que chaque mois ñu ñëw jàppale ñu ak yooyu donc euh, am na solidarité ak yow femme islamique am na yenn association yu fii ñëw di ñu jàppale à part loolu euh, secours islamique mu ñu doon jàppale ak euh, ONG Jamra voilà donc ñooñ ñu ñuy jàppale ñoom ñoo ma dimbale ba ma osé jël kër hmm, boole si kër bële xale yi di fa fanaan def ko si école donc ndimbal yi bu dul woon ñoom tey jii xëy na du ñu du ñu ñemee yokk xale ba egg ci cinquante deux enfants. école bi euh, depuis trois ans euh, mu ngi fonctionner parce que dañuy euh, dañ daan nekk xale yi xale bu ci màgg tànk amul sept doo ko mën a dugal école donc xale bu ndaw bi mu toog noonu doo ko mën a kii muy jàng doo am benn activité loolu moo taxoon ñu taxawal école franco arabe. parce que à partir de deux ans rek yaa ngi commencé di jàng préscolaire encore maître coranique bi toujours mu ngi fi di leen di jàngal euh, su ñu demee ba nga xam ne ni mm, ñun exemple classe yi ñu amul parce que ren am nañu CP CICP ñu doog la yóbbu ci yeneen école yi mais bu doon suñu sago école yi day continuer ba CM2 mais actuellement ñu ngi ci Euh, seppe tey ji soo gisee nit yi di dem di sànni doom parce que bés bu nekk nga dégg ni ñu ngi euh, xale bu ñu sànni euh, soo demee mbëbës diggante at bële ak at bi lu tolloog juróom fukki xale sànni nañ ko xëy na ñooñu dañoo réer donc suñu leen sensibiliser loolu dina dem ba jóge fi donc ñu ngi woo suñu mboqu jigéen yépp euh, loolu jeex fi képp ku am yenn problème yi soo ñëwee ci daaray sëñ Saliou dinañ la won yoon saa soo bëggee sa doom rek mun nañ la ko jox mais nga bañ a sànni walla nga bañ a rey loolu daal laa amoon lu ma doon wax sama mboqu jigéen yi parce que bakkan dafa foor L'association Nour en collaboration avec Madame Djang Salimata Diop secrétaire élue au Haut Conseil des collectivités territoriales lance la campagne Une maison pour l'orphelinat d'Aré L'objectif est de collecter des fonds pour l'achat d'une maison qui permettra à Madame Sadio d'être autonome et aux pensionnaires de l'orphelinat de grandir dans un environnement propice.